politique dafa sérieux politique yombul yambar du def politique manam ku tayel ak ku amul fit ap nay du def politique que ku ci yag djambarga parce que il faut quand même ñun ñu mën taxaw parfois défendre statut homme politique bon waxee non non mais c'est des politiques tu sais les les hommes politiques là vraiment dëkk bi te bu nekkee ci koñ ba lu metti dañ naan la nañu woo kan moo fi politique ñu ne Abdou Mbow mu ne nañ ko wooy ñu ne kan moo nekk ci gox bi ñu ne Marie Thérèse wala keneen ñu ne nañ ko oowi te homme politique rek dama wax ni man li ma gëm mooy dina ñiy politique te def ko dëgg alaaxira bu ñu duggee bu xalif généraux yeeg balay ñenn ñi ñaan ñi ngi ci ay nit la ñu leen di topp ci diine bala ñuy dugg homme politique yi nañ dugg parce que politique rek ngay def politique ngay def jël sa alal di ko def ci nit honorable député Abdou Mbow am na une expérience personnelle bi nga xamante ni moom du ko wax politique rek ngay nekk di dimbali nit di ko guddil di ko bëccëgal lu mu nekk nga nekk ci nga ñëw ba ci jour vote bi mu war la c'est-à-dire politik rek ngay def te yow wóoru la ni kii ngay nekkal walla lii ngay def xamoo te boo ko def am xas